wala muridi dagu leen ma yaalaan ci biir seexanta bu leen nalaween mbole muridi déglu leen dagu leen ma yaalaan ci biir seexanta bu leen nalaween li may nelaw nelaw du tee yeete li may gëlëm gëlëm du tee ma amaana kuy nelaw nelawlu ngir réer waaye bu defee yite dootul yandoor bu leen di fàtte yàlla ak dogal ya ak atta ya sañ-sañ ya ak mbugal ya kattan bu ànd ak bareem ca lay jëf loo gis ma xew mbindeef mënul sañul lëf dogal bu am day la kooki xew-xew xanaa sant yàlla rek tey ñaan yàlla taas ñu ci barke yàlla yokk ay leeram wax dëgg yàlla euh, sëñ bi kenn mënu ko fay ndax euh, kenn mënu ko fay ndax li tax kenn munu ko fay li ñu defal moom rek mooy ñu ko defal kon boog bu màggal gi ñëwee kenn ku ñu ngi lay ñaan nga dikk siyaare si euh, santaat sëñ bi dolli ci la nga xam ne moom la la defaloon ci barke Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf. te kenn ku ne booy ñëw na nga fexe takk maska li nga xam ni moom lañ santaane nga def ko tey moytu jaxasoo wi nga koy moytoo tam. ñu ngi eh, mooy defar na ñëpp. defar na àdduna bépp kuy murit rek defar na la ak kërul murit defar na la ñëpp la defar ndax maam Cheikh Anta lu ñu am ci yoon Sëñ Tuubaa bi rek ko yebane moom ndax moom la jëkk am ci taalibe de te maam Cheikh kenn la moom la borom Tuubaa jëkk am ci taalibe bu wér a wér a wér kon nag bésam bii du bésam caaxaan ku fi ñëw rek yàlla ak Sëñ Tuubaa naa ak lépp boo amoon tàggale naa moom nga bàyyi ko Tuubaa si ga feew bi fi jaar moom yàq na lu bari waaye waaw yëfu sëñ Touba moom murid dafa xër kenn ku ne ngi ñëw sa yéene ak sa bëgg-bëgg ak sa pas-pas di ñaan nag bu nëgën déwénee yàlla ñu ko teewee nëgën déwén te nëgën déwén dàqal ñu nëgën ci barkab sëñ Fallou ak borom njenne ak borom màggal gi ñu teewe ko at yu bëree bëri màggal moom ku ne xam ne waroon naa demee lépp lii waaye nag ni mu demee la te ndigal am solo te waa ko suñ Tuubaa yi dañoo topp ndigal toppante rek a tax màggal gu ñëw rek moom yéene nañ waaye nag ah lañ yéene lépp yàlla na ko yàlla yeggale sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér. barab bii sëñ Gaawane foofu la sëñ Tuubaa wàcceen bu mu jógee Gabon moo tax sëñ Gaane bu fi jógee ne ko moom la sëñ mu Ka naan ay piis la woon taax ma Bamba wàccoon bi teeki biir loo fa dagaan da jëkkun kon fii ku am fulla da nga fiy ñëw fi la aajo yu fajoo te it Sénégal gépp dañuy xam sëñ Gaawaan mooy kan ak li mu defal sëñ Touba bekkoor bii mbas mi ñuy wax liñ wàcc fii ci Kamil yàlla na ko fi jëlee ba de sur ko dégg ci mennam réew na fi jóge ci barkeb sëñ Gaawaan diggante sëriñ Gaawaan ak sëriñ tubaa boo koy xool mi ngi mel diggante sëriñ ak borom Touba ndax jur doom ni mu neexe nga jaay ko suñu njurul jënd ko taalibe ak taalibe rek fi leneen ñëw fi lu ak taalibe sëriñ Gaane mi itam mas naa di kël sëriñ bi naa ko ñaas ma ñu xam ne sa bambara duma sa doomi bàyyi mas naa di kël sëriñ bi ko war ma ñu xam ne yaay law bi may sa mbaam ma fii la doon xalangoo ci lay bi taalibe sëriñ Gaawaan ak Seex Ibra sëriñ Fallu ñoom rekk ko amoon sëñ Touba da leen lépp jox ko seen lépp waaye sëñ Touba defal leen lu kenn. maa ngi bàyyi ko Ndakaaru ca dëkk bu ñuy wax usine benn tali maa ngi bisu tey bi li ma ci yëg mooy maanaam dina ma fàttali Serigne Amidou Mbacké sama turandoo bi njëkk a nekk xalifa Daaru Salaam di sët bi njëkk a nekk xalifa fii ci Daaru Salaam bisu tey bi dina ma ko fàttali bisu tey bi dina ma fàttali eh, daan naa ànd ak sama waajuru góor di màggal si Daaru Salaam. bisub tay bi dina ma fàttali màggalu daaru salaam yi nga xamante ni bii depuis ba mu ju gane àdduna ba léegi maa ngi koy fekkee bisub tay bi fàttali na ma ko. yëg-yëg bi ma ci am mooy kontaan naa rek di wax rek ne gannaaw ba man aw ma loolu salaam te itam maanaam màggal daaru salaam jot fekk ma daaru salaam yëg-yëg googu daal contentement munu koo weesu. waaw xanaa dellu ci am mbégte rek ndax mën naan la bis la boo xam ni euh, moo defar bis yëpp. ndax ki nga xamante ne tey mooy borom pakk bu sell bi ñu nekk di maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak gaawaan kenn ku nekk xam na ni bis bii mooy ngan gu mag nga xam ci la ganale woon Serigne Touba euh, te ngan gu mag googu moo waral bis bi te kenn ku nekk xam na ni maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak gaawaan taax mii mu nekk nii fii moo nekkoon bara ku tedd kii kon nag lu xam ne Daaru Salaam euh, am na wàcc waayu rëy woo xamante ni bis ni tey. wax nañ ni keroog ba nga xamante ni ku tedd ki teew na fi ci Darou Salaam te maam Cheikh Anta borom Darou Salaam ak gaawaan di ko ganale keroog lépp loo xam ne dagan naa xéwloo rek Cheikh Anta def na ko fi ci bis bi ngir sëñ Touba. kon nag nu ngi ci doolee sant baat bu baax a baax a baax a baax di ci amaan mbégte bu baax a baax xanaa di ci gën a yokk suñu taalu bi rek gën a góorgóorluwaat bu baax a baax gën a feddaliwaat kóllëre bu baax a baax ci sëriñ bi. mboolem murid yi déglu leen ma yaalaan ci biir Seex Anta bu leen nelaween mboolem murid yi déglu leen déglu leen ma yaalaan ci biir Seex bu leen nelaween li may nelaw nelaw du tee yeete li may gëlëm gëlëm du teema woote amaana kuy nelaw nelawlu ngir réer waaye bu defee yite dootul yandoor ku leen di fàtte yàlla ak dogal yaa ak atta yaa sañ-sañ ya ak mbugal yaa kattan bu ànd ak coono bareem ca lay jëf loo gis ma xew mindeef ma nul sañul lëf dogal bu am day la kooki xew-xew